mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun si rajo ak euh, réew mi FM di nuyu mbokki auditeurs yi ak mbokk internautes yi nga xam ne nag ñoom ñuy seetaan ci euh, www.rewmi.com tey nag ñu am mbégte di dalal ci émission gox bi Serigne Issa Diop nekk euh, ingénieur informaticien titulaire d'un master management de projet nekk itam secrétaire général jeunesse républicaine libre nekk itam président de l'initiative de la jeunesse africaine pour l'annulation de la dette nekk itam conseil municipal fële ca Pikine Ouest bokk itam ci alliance pour la république sëñ Issa Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. Mbemba maa ngi lay fay. di la sant bu baax di la gërëm aussi. par mhm. rapport à cette invitation. di mhm. nuyu euh, di gërëm mbokku auditeur euh, réew mi FM. ak mhm. euh, Rewmi quotidien ñi nga xam ne ñi ngi koy suivre si. Euh, xarala yu yees yi. Mhm. di la gërëm bu baax a baax di am mbégte di jàkkaarlook yow. jërëjëf waxtaanee waxtaanee ay ponk yu am solo. Mhm. alors sëñ Issa dañ koy waxtaanee sa xam-xam itam màcc na ci wàllum koom dañ ciy waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci initiative yéen ñi nga xam ne ndaw ñi yéen a ko yëkkati yow nga jiite ko lu jëm ci annulation det bi. ginnaaw bañ euh, fësalee mbëbët bi fan ngeen toll tey ci wàll wi ni mel. waaw ñu ngi lay sant bu baax euh, ci laaj bu am solo boobu euh, loolu nag bi ñu ko tàmbalee. Mhm. dañu gis ni appel de Dakar bi président de la République son excellence Macky Sall lancé woon jëmale ko ci wàllu boobu. Mhm. mu amoon ci aussi écho favorable par rapport à certaines puissances européennes. Mhm. Euh, mais surtout euh, mu euh, méngoo ak gis-gis ak xalaatu ki nga xam ni moo jiite woon clergé bi <laughs> mu am ci aussi taxawaay bu am solo muy le pape François mu jàpp ci jàpp bu am solo <laughs> ba yàlla defal ñu mu am ci tawféex boo xamante ni juddu na ci ñu bari dañ ko dul bàyyi xel <laughs> mais li nga xam ni moom mooy Euh, gelu service de la dette de l' année deux mille dix neuf deux mille vingt. Uh-huh. li ci ëpp solo mu ngi tàmbalee ci appel bi nga xam ni moom le président de la république son excellence Macky Sall ak leadership bi nga xam ni am na ko sur le plan international. Uh-huh. permettre réew yi nga xamante ni dañ leen di wax ni seen réew yu amul euh, doole ba noonu la. Uh-huh. Euh, ñu mën ci bénéficier. tey jii. avantage ak euh, yi nga xam ne njariñ yi nga xam ne mu ngi koy tàmbali di jur. <laughs> mooy même pour la année deux mille vingt et un euh, les puissances européennes la mm-hmm. banque mondiale comme le FMI. Mm-hmm. ñoo ngi waxtaan xool aussi. Euh, ci deux mille vingt vingt et un boobu. Mm-hmm. aussi ni ñuy geler. li nga xamante ni moom mooy service de la dette bi pour permettre réew yi nga xamante ni mooy réewu Afrique yi. ñu mën am euh, marge de manœuvre par rapport ak impact bi nga xamante ni euh, Covid 19 am na ko. Mhm. Euh, li nga xam ni nag moom moo ci gën a am solo. ci li nga xam ni mooy IJAT muy initiative de la jeunesse africaine. Mhm. pour l'annulation de la dette. Mhm. liñ ci def. moom mooy mbébét bi ñu ci amoon mooy fexe ba éveiller conscience su ndaw ñi. parce que généralement ces questions d'ordre adhéré nañ ci. waaw question yooyu. dafa daawul intéressé lu bari ndaw ñi. muy service de la dette ak dette bi nuñ koy lebee ak fu ñu koy dugal. Euh, satisfaction bi ñu ci am mooy euh, gis nañu ni ndaw ñi ñu ngi koy gëstu di ko hmm. saytu. Hmm. Euh, bi ñu leen ci woowee it indi ay experts ñu. ñu waxtaanal ñu. ci mbirum det mi defal ñu comparaison aussi. Mhm. Euh, par rapport ak réew tugal yi comme nu ma koy faral di waxee. Mhm. nu ñuy toppatoo seen det. Mhm. Euh, ku mel ni banque centrale européenne. muy BCE nu muy euh, nu muy nu mécanisme yi muy utiliser. ba nga xam ni France mun na nekk ak quatre vingt pour cent. de son de son PIB si taux d' endettement si endettement bi. te te donte économie woom du ko yëg bu baax a baax. ñu def comparaison yooyu. ndaw ñi jëlee ci li nga xamante ni mooy li gën a am solo mooy am une exigence par rapport à nos dirigeants d'aller vers l'autonomie mhm. monétaire mhm. muy li nga xam ni moom moo ci gën a gën a am solo ñu mhm. organiser woon ndaje bu am solo defee ko woon euh, euh, fi nga xamante ni moo nekk ci euh, VDN muy résidence Mamoun expert yu xarañ yu nekk Sénégal ak yu nekk bitim réew càmbar ko càmbar ko participer si mais li ci gënoon am solo mooy cette adhésion de la jeunesse africaine tey boo jëlee réew yi nekk CEDEAO ñu ci bari Euh, am nañu ndaw moo xamante dëkk na fa bokk ci li nga xamante ni moom la ñuy mbébét muy mhm. une satisfaction mhm. parce que dañuy faral di wax ni balaa ñuy dem vers la CEDEAO des états mhm. il faut d'abord la CEDEAO des peuples te ñun ndaw ñi ñoo ngi ci ñu la prochaine étape bi lan la kon euh, la prochaine étape mooy euh, comme waxtaan nañu ak ndaw ñi bañ xam importance bi feneen fi ñu ci jëm bu soobee yàlla mbébét bi ñu am mooy am na ay organisation internationale yoo xamante ni sont d'ordre africaine waxtaan nañu signé ak ñoom une convention de partenariat mhm. dans cette lutte là pour l'annulation de la dette mhm. euh, bu ñu ci jógee ci loolu euh, diir ba du yàgg tuuti mhm. euh, ñu ngi woote benn sitting boo xamante ni dinañ ko defee place de l'obélisque di ci woo ndawu Sénégal yëpp bu ñu arrêté date bi bu soobee yàlla waaw la première fois qu'on en parle la boo xam ne ñu ngi ko doon suuxat di ko waxtaanee di ci dox aussi ak ñu ay acteurs de développement yu bari wundu bi mbébét bi mooy par rapport ak dette bi nga xamante ni. Mhm. surtout la dette bilatérale. Mhm. parce que pour la dette commerciale day am ay yeneen yu muy kii mais réew yi nga xamante ni ñoom la ñu sekkal ay partenariat tey jaadu na. Mhm. ñu mun ñu teggil loolu. ngir suñu réew yi mën a mën a mën a xoolaat. est que du ku ku leb tamit war a fay. waaw euh, yaakaar naa ñun Afrique li ñu fay dafa ëpp. Euh, te bu ñu doon xayma euh, actif ak passif. diggante ñun ak ñoom ku ameel sa moroom. yaakaar naa ni la dette de sang est encore beaucoup plus importante waxuñu ko nag pour mhm. delluwaat ci ginnaaw wala leneen mhm. euh, mais nous sommes euh, dans un monde boo xamante ni mhm. jamono yuñ toll nii euh, day fasanti ko nit ñi dañuy demalante di dikkalante l'histoire est là on sait comment la dette a commencé en Afrique xam nañu aussi ñoom xam nañ ko ñun xam nañ ko et on sait aussi le caractère entre guillemets odieux de cette dette là. Euh, ba war na mën a tax. Mhm. ñoom aussi euh, mhm. ñu koy rafetlu seen njiitu réew yi. Mhm. ñu ci bari. est-ce que de euh, def ngeen ay jéego ngir dem rencontrer secteur privé bi mi ngi mel ni groupe promo consulting bu MEDES Mbagnick Diop jiite ak CN e CNP ñooñu nga xam ne dañuy liggéey itam ci wàllum koom est-ce que jotul itam ngeen dem rencontrer ne dëxëñ lenn ci benn këyit mun ko jébbal ñi nga xam ne askan wi ñu mun ko xam. waaw loo li nga wax noonu bokk na ci perspective yi ñu amoon. piste de réflexion la boo xam ne bu am solo la parce que sitting boobu Euh, dafa àndoon ak dox jébbal mémorandum <laughs> euh, ba ñu tàmbalee fi ñu tàmbalee woon mooy dem ci chancellerie yi nga xamante ni nekk nañ fi représenté Union européenne <laughs> moo xam France wala États-Unis wala feneen <laughs> jébbal leen këyit wax leen mbébét bi ñu am par rapport à l'initiative de la jeunesse africaine ñu am retour par rapport ak l'ambassade de Bruxelles et l'ambassade de la France aussi euh, yooyu yëpp aussi mu nekk ay jéego yoo xam ni seq nañ ko maintenant le secteur privé sénégalais nous nous avions préféré dans un premier temps. Mhm. dem vers ñi nga xamante moom mooy euh, liggéeykat yi parce mhm. que. impact bi foofu la gën a am solo ma mhm. ci profiter ci occasion bi di mhm. remercier le secrétaire général de la CNTS mhm. qui était présent avec nous et qui a qui fait un historique de la dette et et et qui nous jiite sax kuréel bi qui nous a encore beaucoup plus expliqué li nga xamante ni moom mooy solos euh, xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy mëne maintenant leneen li li ci topp mooy comme li nga wax euh, mémorandum bi nga xam ne mooy moo mooy tukkee ci ci waxtaan boobu. Euh, rédaction bi noppi na ba noppi. Euh, bisu sitting boobu la bugg a booleeg dox jébbal ko. ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité euh, centrale yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. ok nekk lu am solo kon wax ci waxu dette bi daal kon yéen a ngi ciy liggéey pàcc bu am solo boole ci ndaw ñi ndax ñëpp tënkuñ ki lu ni mel est-ce que xàjj ak seen mën nañ ko ci seetlu wala amu ci. Euh, waaw li gën a am li li ci am mooy euh, léeg-léeg du mën a ñàkk. Mhm. du mën a ñàkk ñu bari boo leen ci woowee ñu gis politique wala ñu gis leneen. Mhm. wala léeg-léeg aussi nga waxtaan ci ak nit waaw léeg-léeg nga waxtaan ci ak nit. Mhm. bon moi je je la c'est la politique qui dirige le monde. donc euh, tout ce qu'on fait a un aspect a, a on a peut pas en disconvenir. Mm -hmm. li gën a am solo mooy. Euh, par rapport à la sincérité des actions qui doivent être menées. amu ci xaaj a def mooy aller vers de l'opposition leur exprimer la situation. génération. Mhm. Parce que Euh, li ñuy def. Mhm. donte ñun Macky Sall lañu àndal. mais mhm. njëriñ li du Macky Sall moo koy fekkee. parce que mhm. dans vingt ans peut-être c'est nous qui serons appelés à diriger ce pays. et c'est nous qui allons nous débrouiller pour payer ces dettes donc si on obtient un élargissement. Euh, ou un report wala leneen je pense que bénéfice bénéfice bi. de manière générale. ñun ndaw ñi ci lay ëppee donte aujourd'hui on parle de taux de chômage on parle de euh, donc forcément. njëriñ li foofu lay a a mën a mën gagné. mbokki auditeurs yi nag yéen a ngi teewlu seen émission gox bi di ci daral ki nga xam ni moom moo di Serigne Issa Diop wax nga ko junj nga ko léegi ci mbirum chômage xam nga organisation internationale du travail génne nañu ab rapport buñ ne juróomi sénégalais ci diis yi nga xam ni liggéeyuñ étude la moo ko génne lan moo ci sa commentaire bu ndëkk en tant que ndaw. waaw euh, nous sommes tous conscients que li nga xamante ni moom mooy. Euh, Covid 19 bi am na impact bu doy waar. ci mhm. euh, euh, liggéey ci liggéey. Mhm. ci taux d'emploi ci économie de manière générale. Mhm. parce que économie moom mooy. moo lal lépp waaw je dis très souvent que. que l'emploi est, le premier élément de l'économie man hmm. sama xalaat la sama gis-gis la hmm. parce que bu ñu nee emploi euh, da ngay wax euh, da ngay wax rentrée d'argent hmm. boo waxee rentrée d'argent wax dépense dépense mooy créer mooy créer fluctuation wu monnaie bi mooy créer économie de manière générale buñ ci jógee moo am épargne loolu yëpp moom mooy euh, moom mooy moom mooy li nga xamante ni moom moo gën a gën a gën a gën a gën a am solo ci am réew te gis nañ ne impact Covid 19 bi. Mhm. li mu njëkk a li mu njëkk a indi comme jafe-jafe du moins. Mhm. moom mooy arrêté yenn emploi surtout le secteur informel. ñi nga xam ni mënuñu ko xayma. Mhm. maintenant le président de la République a pris certaines mesures pour permettre de sauvegarder. Euh, des emplois et autres. avec bi li mu duut baaraam moom doy waar euh, rapport bi li mu duut baaraam. Euh, c'est assez important. Mm on n'en disconvient pas qu'aujourd'hui, il y des difficultés par rapport à l'emploi des jeunes. Mm Euh, le pléthore de programmes qui existent aujourd'hui pour essayer de d'absorber loolu mhm. maintenant li gën a am solo mooy rapport aussi boo koy def mhm. da koy dañ koy càmbar mhm. wala bu ñu koy commenter dañ koy càmbar origine yi parce que aujourd'hui qu'on le dise ou pas euh, même le ministre du travail dit que wóoru ko sax ni OIE OIT moom moo defar rapport bi beneen fànn bi ci topp mooy ce rapport là certes moi j'ai fait des investigations là-dessus mais bu ñu ko gëstoo di nga ni les données qui concernent le Burkina elle date de 2004. <laughs> kon da ngeen bëgg a dàq yéen rapport bi que ne nekk lu. non non non non ah, euh, je précise. Mhm. je précise. Mhm. que la jeunesse. Mhm. a un problème d'emploi dans ce pays. comme dans tous les pays du monde. Mhm. aujourd'hui l'emploi est un problème est, est, est un mondial. bien sûr loolu on n'en disconvient pas. Mhm. maintenant pour en revenir par rapport ak pour cent. Mhm. mooy bu ñu xaymaa ñi am 16 ans ba 5 ba ba en âge de travail. ñaar ñoo ci gis kenn ki mooy liggéey keneen ki liggéeyul. je pense que loolu aussi ça porte à équivoque. maintenant de rapport yoo xamante ni les données sont issues euh, de la CIA. muy ñuy gëstu yu ñuy def. yenn données Euh, les données qui concernent le Sénégal datent de 2007 donc day am li nga xamante ni moom mooy njeexital euh, on n'en disconvient pas l'OIT est une organisation très sérieuse crédible très crédible et très sérieuse je dis je sais je sais en âme et conscience que 2019 ba 2020 mhm. OIT commandité wul benn rapport ça je le sais. Ah bon? de manière non vous pouvez aller vérifier dans leur site. Mhm. lu may wax du du du loo xamante sama mhm. sama sama sama sama nafsu bakkan laa ko teg di ko wax. Mhm. maintenant ça n'occulte pas le fait que. réew mi am nañ jafe-jafe. ci li nga xamante ni reconnaître nga loolu itam. non euh, gis nga gis nga am réew. buñ koy tabax. lépp rek du koy sotti. dama ni la. Mhm. réew mi reconnaître na ni am nañ ay jafe-jafe ci wàllu emploi wu ndaw ñi. Mhm. d'où l'existence de programmes et de projet mhm. les autorités centrales en ont bien conscience. Euh, pour essayer d'absorber cela. <laughs> loolu yëpp aussi ci doxalinu askan ci doxalinu njëriñu askan bi lañ koy teg. <laughs> li gën a am solo mooy ñu xayma xool ñun dëgg dëgg dëgg fan lañ toll parce que deux mille dix huit deux mille deux mille dix huit deux mille dix neuf on était à un taux de chômage entre et seize huit. bu génne. ça c'est la réalité. <laughs> mooy gëstu bi nga xamante ni def nañ ko. maintenant. moi je me dis que pourquoi ne pas faire confiance à nos statisticiens mhm. plutôt que de faire confiance à un rapport étranger mhm. boo xamante ni d'autant plus ces données datent de 2010 2007 pour mhm. en ce qui concerne le Sénégal et en ce qui concerne le Burkina Faso ces données là datent de eh, lu ci mun ti am rek euh, la nga xam ni nag moom moo jëm chômage bi ma ngay wéy ndax euh, fan yi umpale woo ni wala dégg nga ni sax la nga xam ni moo jëm ci gaalu looco yi ñu ngi leen di jël di dem wutali tugal ngay ndaw fléau bi commencé gañewaat fii euh, gannaaw commencé waat am doole alors tey euh, lan lañ war a def autorité publique yi lan lañ war a yéen jéego lañ war a mën a teg pour téye xale yi euh, loolu dañu koy dañ koy naqarlu mhm. surtout ñi ciy ñàkk seen bakkan au-delà d'une question économique c'est mhm. une question de dignité dignité nationale dignité africaine de de manière générale mhm. parce que quand j'ai lu le, un texte de Felwine Sarr qui date de, de 3 ou quatre ans, bu muy def référence par rapport au lambeau de chair dans les barrières de Mehia, euh, en Libye. Euh, am métitu xol ak njeexital. et ces jeunes là nekkul ni dañu ñàkk jom moo tax ñu dem def loolu. c'est parce que ils sont dans des position de responsabilité war soppi dara ci seen doxalin mhm. ci seen dund doonul loo xam ne lu rafet la mhm. euh, lu ñuy ñaawlu la et nous invitons d'autant plus que ça euh, les ministres concernés mhm. surtout en prélude en premier lieu le ministre de la jeunesse euh, le ministre de l'emploi ñu gën a gën a gëstu par rapport à ces situations là et aussi xool bu baax xool bu baax yan yan njeexital la ñuy wut. Mhm. Euh, par rapport à ce mythe là parce que c'est devenu un mythe aujourd'hui mhm. euh, nos camarades qui sont à l'étranger euh, am na ci ñoo xam ni tey bu ñu la doon nettali nu ñuy dundee. Mhm. toog Sénégal sax daf lay gënal. certes nag euh, kenn mun ta xëy di xool sa wayjur bu jigéen. wala sa way wayjur bu góor mu nekk ci ay jafe-jafe. war nañ soppi kon politique. du soppi politique kese yam si mhm. soppi politique la soppi xalaat mhm. euh, parce que le mirage européen comme on le dit très souvent ça existe bien sûr ça existe am nañ ay nawle ak ay ay yoo xamante ni dem nañ fa ñëw euh, mais wax dëgg yàlla liñ fa séntu woon euh, gisuñu ko fa loolu aussi il faut ñu koy leeral ci bopp ndaw ñi ni mhm. ko leeral ci bopp xale yi tu quelqu'un qui prend cinq millions de francs CFA pour essayer de trouver un visa tu prends cinq millions tu trouves un terrain war nga ko mën a investir fii mu jural la dara nga mun ci dimbali say waajur dimbali koo ci. Mhm. c'est c'est des yoo xamante ni il faut que ñu expliquer ko ndaw ñi il faut que ñu waxtaan ci ak ndaw ñi. Mhm. y a des ONG qui sont là y a des mais. Euh, mais politique yi day dem ba après de manière moom laa mhm. moom laa dispersée. ce qui fait que du am impact bi nga xam ne moom la ñu soxla. qu'on le dise ou pas l'existence du ministère de la jeunesse à part du ministère de l'emploi à part ça me def ko benn va pour de l'intérêt national celui la jeunesse aujourd'hui doit avoir ces outils-là le ministère de parce que quoi qu'on puisse dire ñëpp a koy wër ñëpp a koy ut mais si on a plus de 67 pour cent de la population mu nekk en âge de il faut le regarder il le renforcer il faut permettre à celui qui le dirige et qui est proche de la jeunesse et qui les comprend mieux mhm. d'avoir les outils nécessaires pour essayer de contrecarrer certains fléaux. dans le cas contraire day nekk ministère bu ñu fi teg rek. Mhm. pour muy muy kii rek. muy dérouler ay actions muy dérouler ay activités yoo xamante ni mhm. l'impact réel. dafay dafay dafay dafay xal di des. ki fa nekk sama jigéen la sama. sama xarit la maa ngi koy félicité ndax mu ngi góorgóorlu mu ngi góorgóorlu bu baax di jege ndaw ñi mais euh, le renforcement de ces moyens lui permettrait par exemple ci jafe-jafe yu mel nii surtout dans certaines zone surtout dans certaines zones ba mais mais yéen seen dak yi nga xam ni waxoon nañ ko dinañ ko defar est-ce que tey loolu bu buñ ci misé woon du du du indi ay jéego waaye dagg yi na ma commencé rek noonu la arrêté di je je je j'ai rencontré j'ai un vieux assez exceptionnel. xaw na xaw war na def ñetti at. Eh, moo nekkoon ki nga xam ni c'est un professeur en agroéconomie. Eh, moo moo xalaatoon eh, xalaat xayma. li nga xamante ni moom mooy moom mooy les DAC. je pense et je le di sincèrement je le di pas euh, par démagogie wala leneen. je dis sincèrement que fi ñu waroon li ñu waroon a def. ci DAC yi. pour mu nekk un projet viable. dañ ko xaw a raté. ah bon waaw euh, un DAC c'est un ensemble. Mhm. je pense que wax naa ko ay yoon. Mhm. ce qu'on a construit c'est des cœurs de DAC c'est pas des DAC. et pour que le projet soit viable pour que le pro projet puisse absorber le maximum d'emplois possible. Mhm. fallait être à la hauteur Euh, de l'ini de de l'idée principale euh, de la lettre mhm. euh, initiale bu bu bu waroon a tënk li nga xam ne moom mooy Daki mhm. avec les infrastructures qui va avec et avec les habitations aussi mhm. pour permettre à ce que mu mu mën a doon li nga xamante ni moom mooy moom mooy mooy mooy njariñ ak njeexital bi nga ci mhm. biñ ci biñ ci biñ ci bi ci président de la république amoon dès le dès le début je vois que mon frère mhm. mon camarade euh, Pape Malick Ndour mu ngi mhm. ciy def ay jéego sous la ah la tutelle de euh, sous la tutelle du ministre de la jeunesse di essayer góorgóorlu aussi pour rattraper ce ce gap là ok mu nekk lu am solo 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg itam bokk ci waxtaan bi ñu wax itam ni créé nga secrétaire euh, mooy mouvement jeunesse républicaine libre kañ la juddu ak lu waral mbébét li. waaw euh, dama lay remercier aussi ci ci laaj boobu bu am solo. Mhm. Euh, je pense que ça fait un an qu'on travaille sur la GLR. muy mm républicaine libre. parce que nous avons fait la remarque simple et clair que dans les parti politiques mhm. euh, li gën a am solo mhm. ci parti politique yi ñu nekk mooy euh, dafa am lu tubaab di woowee tyrannie mhm. des responsables locaux euh, gox bi nga dem responsable yi fa nekk du ñu bëgg nga nekk ay ndawu parti bi da ngay nekk seeni ndaw mu am absence de collaboration sincère au service du parti wala au service du président du parti généralement tu sers les intérêts du responsable local boo ko jéggee rek responsable bi euh, ah, waaw mënees na laa def noonu wala mënees na laa jàppee koo xamante ni du ko ñuy dimbali wala xanaa loolu nga subir foofu ca Pikine Ouest <laughs> ci diggante Pape Gorgui Ndonga ñeneen ñi nga xam ne duma leen tudd ba ci kanam tuuti ñi ne dinañ ci ñëw ñu mu gën a leere euh, en tout cas suñu la déggee ngay wax Pape Gorgui Ndong moom leader leader la fa euh, moom euh, kilifa la ci réew mi. Mhm. leader rek ci ci gox bi parce qu'il a été ministre de la jeunesse. bien sûr il a été ministre délégué. Mhm. c'est le maire aussi de la commune. Mhm. que je PCA euh, c'est le maire de la commune bi nga xamante ni foofu la foofu la nekk on a eu à travailler. dafay conseil itam. j'ai même été son directeur de cabinet. dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ci say mbébét. donc. Euh, mm-hmm. mais ñu dem ci euh, mouvement bi wala ci euh, cadre bi nga. xam ne créé nga ko ce cadre des jeunes. Mm-hmm. yoo xamante ni dëkk ci département de Pikine ak feneen ak feneen dans le Sénégal. Mm-hmm. yu gis ni peut-être doxalin bi. dafay laaj une certaine liberté. une certaine liberté d'expression. une certaine liberté de ton c'est pas une liberté qui soor mhm. euh, du cadre bi nga xam ni moom la alliance de la pour la république mhm. définir mhm. Euh, mu nekk loo xamante ni nous sommes de républicains li ñuy li ñu gëm la ñuy wax bu ñu gisee nii lii moom mooy li gën a am solo ci loolu la ñuy taxaw euh, ñu nekk aussi ñoo xamante ni li may faral di wax un ami le docteur Mboup euh, nu ma ko koy faral di taxer quelqu'un qui a une certaine liberté de ton parce que ay ndaw lañu Euh, nous avons une certaine idée de la politique. Mhm. Euh, gëm aussi euh, que Sénégal bu defaroo rek ci ñun lay tàmbalee. ñu am aussi beneen appartenance boo xam ne dañ ko bokk muy au-delà du Sénégal. Mhm. ce panafricanisme qui nous amine anime. Mhm. loolu yëpp aussi daje. ñu gis ni ñun war nañu mën a liggéey ensemble hors des chantiers qui définissent le parti. muy gox yi nga muy kuréel yi nga xamante ni am na fa. ñu àndandoo ci. waxtaan euh, trouver aussi euh, principe yi. li ñu njëkk a tàmbali euh, moom mooy IJAD. donc IJAD est une idée boo xamante ni c'est la jeunesse républicaine libre. moo ci xalaat. dem inviter les gens de l'opposition dem inviter la société civile waxtaan si ak ñoom. ñu àndandoo dox ci. IJAD aussi noonu la fas yéenee di doxee. euh, dépasser les clivages <laughs> euh, pour arriver vers li nga xamante ni moom la moom mooy moom mooy li gën a am solo moom mhm. muy muy muy les capacités mhm. euh, parce que aussi euh, nous avons vu que gars yi nee nañ ñu am nañ liberté mhm. que ce soit dans le partie que ce soit dans les pays mais liberté liberté yooyu boo amul capacité wu Eh, doxal ko wala manifester ko. Mhm. Eh, day nekk un frein at tes par mhm. rapport ak li nga xamante ni moom nga gëm loolu mooy mbébétu ISRA IGRL. Euh, mhm. ñu ànd si ak ay jeunes yoo xamante ni c'est des jeunes. Euh, de finalité bi lan la finalité bi. la finalité euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, c'est de permettre à la jeunesse euh, surtout à la jeunesse républicaine. Euh, ñun ñi nga xamante ni dañu faree ci président de la République. te yenn talent yi ñu koy inhiber. Mhm. la plupart du temps. Mhm. leur permettre de se de briller ngeen ñu gis leen quoi. ngeen permettre de briller et de mhm. faire briller e faire briller les autres. parce que suñu gëm-gëm la. si on est on est cinquante ou deux cents jeunes. capables de défendre le président de la République capables de défendre le Sénégal capables de défendre l'Afrique. c'est l'Afrique qui y gagne c'est le Sénégal qui y gagne c'est le président de la République qui y gagne. mbokk yi a ngi ci émission gox bi fii ci euh, rajo Rewmi FM. 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 gox bi la ñuy wax nag dañuy dem ci goxu Pikine. Mhm. Pikine euh, day xëy di màgg. Pikine tey boo ma doon wax jafe-jafe bu njëkk ci commune Pikine lan la. département de Pikine. département Pikine waaw de manière générale. Uh mhm. -huh. euh, ba fasantikoo ci collectivité locale. Mhm. commune yi ko seek. Mhm. dinañ ñëw ci commune bi waaye Pikine de manière générale. benn jafe-jafe la am. mooy. bi si jiitu jafe-jafe boobu mooy euh, mooy mooy jafe-jafe yi collectivité locale u Sénégal yëpp am. Mhm. Euh, dama koy faral di wax mais ñu ci bari duñ ci bàyyi xel. wala ñi koy wax ñëpp duñu bàyyi xel ci loolu. Euh, balkanisation bi Afrique subir. Mhm. moom la collectivité locale Sénégal yi subir. ah bon waaw. Mhm. les collectivités locales du Sénégal. à mhm. l'état actuel ne sont pas viables. explique-toi. pour mu pour mu pour mu gën a leer mooy. collectivités locales yi niñ ñu ko daggatee. mënuñu am ay recettes. ak ay programmes ak ay projet yu leen permettre de sous-tendre le développement des collectivités locales en en, en somme. day metti mënta nekk sax. mënta nekk sax. Euh, misaal loo ñu mën a jox ci misaal. bu misaal bi ma lay mën a jox mooy boo jëlee commune bu mel ne Pikine Ouest bi ma mmh. dëkk. Mmh. collectivité locale bi euh, avec la dévolution. Euh, du patrimoine et mmh. autres. dafa recevoir la district de Dominique. district de Dominique boobu mu recevoir. masse bi ça tourne autour de quinze virgule quinze sept. quinze millions sept. alors que avant l'acte de la décentralisation commune Pikine Ouest quatre millions la doon fay comme salaire. 4 millions yooyu ñu boole ci 15 yi tu te retrouves ak 21. Mhm. entre 21 et 22 millions. Mhm. commune Pikine Ouest ñaari marché la am. <laughs> Djibi Sarr ak ban. <laughs> Euh, ñetti marché la amoon. Euh, Chavanel Djibi euh, Sarr ak ak Chavanel Djibi ak. bu bu bu Maam Jaara Maam Jaara léegi dañ na ndax à mhm. cause du terre fan la ko commune collectivité locale bi di jëlee ok kon recette bi day métti du du collectivité locale u Pikine rek de du collectivité locale de manière générale yëpp mais il y a même des collectivités locales dans le Sénégal yoo xamante ni tey boo fa demee dañuy xaar fonds de dotation ak fonds de concours pour fonctionner. Mmh. c'est la vérité. l'idée mmh. la lettre l'esprit mhm. de l'acte de la décentralisation c'était d'amener li nga xamante ni moom mooy moom mooy arrondissement yi mhm. méngale ko ak communes yi mooy jël ossature administrative boole ko ak ossature administration locale mhm. nga xamante ni di nga am commune bu commune boo xamante ni mun na. plein exercice lay day am loolu moo indi woon sax. Mhm. moo indi woon dès le début bu ñu dégloo le professeur euh, Ismaïla Madior Fall. Mhm. mu mu mu prôné woon commune de plein exercice. Mhm. communalisation intégrale fallait ko commune yi yaatu am espace am possibilité de recette. pour ñu mën a wax communalisation intégrale. bu ñu amoon tey par exemple. commune bu toll comme arrondissement de Dagoudane regrouper sept communes mm une commune qui peut avoir des recettes à hauteur d' ou de milliards mhm. avec milliards de recettes plus le, fonds de concours de l'État collectivité locale bu mu mënti doon war nga mën a góorgóorlu mhm. améliorer les conditions de vie mais itam bu ñu la falee a a def euh, a ndax yéen yéen a ngi ciy conseil nga itam ca Pikine Ouest coopération décentralisée généraliser moom mooy moom mooy moom mooy faral di wax loolu xam nga le partenaire il faut lui présenter un projet fiable boo xamante ni dina ci gis njariñam mhm. soit mu opposer les contours par rapport à l'écologie et autres mhm. soit mu mu nekk ci leneen loo xam ni lu am solo la luy mën a jariñ askan bi wala moom lu koy mën a indil koom-koom mhm. loolu moom mooy mën a tax euh, mu mën ci dugal loxoom c'est vrai que yooyu yëpp war na mun a nekk parce que gis nañ ay collectivités locale yu bari mhm. yoo xamante ni ci fànn boobu euh, la ñuy doxee pour mhm. mën a euh, pour mën a mën a mën a mën a mën a suqali wala mën a def ay jéego par rapport ak seen euh, seen seen collectivité locale mu ñu mën a am yenn yenn changement yi yenn coppite yoo xam ne dinañ ko indi ci dund àdduna mhm. ci dund doomu aadama yi nekk foofu mais li nga xamante ni moom moo gën a am solo mooy jafe-jafe yi collectivités locales yi am il faut ñu koy ñu koy ñu koy positionner dans l'histoire mhm. pour que les gens puissent comprendre maintenant nag leneen li ci des yëpp comme li may faral di wax mhm. euh, c'est la volonté mhm. de faire et de défaire euh, moom moo mun a permettre doomu aadama bi ñu dénk la mbir nga ñoŋal ko comme ni mu waree commune bu Pikine Ouest da ngeen fal maire mi ngi tudd Pape Gorgui et depuis 2014 ba tey moom mooy jiite mairie bi. Mhm. tey euh, laata ñuy dugg sax ci ay bilan Covid bi ndax nu mu ko géré ca Pikine Ouest yow ànd nga ci. waaw euh, seetantal nañ gis ay action comme ni ko ñëpp di faral di defee. Mhm. je pense que Covid bi bu ñu ko waxee dañ koy wax rek de manière sincère. Mhm. du mbir moo xamante ni collectivité locale moo koy mën a sàmm wala moo koy mën a gérer. Euh, c'est des actions complémentaires bu ñu doon indi. ñu koy indi di ko mottali. sincèrement. Mhm. en âme et conscience. parce que aussi. Euh, parce que ñu bëri dañuy ŋàññi parce que itam mairie day génne am na ñu fi toog ŋàññi ne ni maire génnee ah jaaduwul ànduñu ci yéen ba xam lépp gongo foofu. Euh, personnellement man. Euh, conseiller municipal laa si mairie ba. Mhm. Euh, dañu participer si vote bi. Mhm. pour élaborer affaire yi xool naka lañ koy defee. Mhm. ñaata ngeen génn ci budget. Euh, pour euh, jàppale ko askan wi. je pense que c'était de l'ordre de quarante cinq et quelques millions. ok mais li gën a am solo mooy. Euh, mooy li may faral li may li may wax. Mhm. Euh, dans la distribution ou dans la répartition. Mhm. jéemuma ko xayma jéemuma ko gëstu. Mhm. jéemuma ko saytu aussi. <laughs> lu tax. Euh, parce que personnellement. je me dis que doomu aadama bi buñ la dénkee mbir. nga war ci def. farata farata. da ngay jël sa kéemtalaay kàttan nga def ci farata nga def ci aussi euh, li nga ci war def mhm. euh, boo ko si deful aussi les populations sont là et peut en juger mhm. yaakaar naa ni ñun Pikine Ouest ñi fa dëkk kenn dofu ci mhm. euh, ñàkkuñu fayda aussi bu dee niñ ko doxalee baax na d'ici les élections locales on saura bu dee ni ñu ko doxalee baaxul aussi nit ñi dinañ jël seeni responsabilité par rapport a la situation vous savez je ndaw laa boo xamante ni samay principe ci politique. Mhm. Euh, du ma may may sori ci yu bari. Euh, parce que bu dul bu dee benn at la sax nekk nañ ko ensemble. Mhm. ñu ànd ko liggéey. Euh, y a une certaine affinité ki a existé entre man ak moom. Mhm. ñu sekk teraanga aussi. mu jóge ci moom ñëw si man comme mu jóge ci man dem si moom. donc je ne me permettrai pas. d'entrer dans les détails par rapport ak ak yu bari si loolu. li ci mënti am mooy la nga xam ne léegi moom moo jëm ci mairie bi tey. Euh, teg nañ ko fa depuis 2014 maa ngi la koy wax léegi Pape Gorgui Ndong tey ak i bilan 2014 ba léegi est-ce que mën nañ jàpp loo xam ni am na loo xam ne mën nañ ko laal que ni lii maire bi def na jéego bi ni mel defuñu bilan am nag de mais dañ lay laaj rek yow en tant que conseiller ndax jàpp nga ni am na changement bu am ca Pikine Ouest personnellement euh, du ma wax en tant que conseiller euh, municipal simplement parce que une partie de son bilan m'incombe l'honnêteté intellectuelle le voudrait ainsi. dama gëm ni. Mhm. Euh, boo nekkee ci mbir di ci dugal sa loxo euh, li gën a am solo mooy waxtu bi. Mhm. bu jotee. Mhm. responsabilité yi nga ci am aussi nga définir ko. xaymaal naa la sànq ne la euh, collectivité locale Pikine Ouest jafe-jafe yi mu am. dama koy wax parce que ëllëg dama bugg nekk maire Pikine Ouest. dinañ ci ñëw waaw bugguma bu ëllëgee. Euh, ma ñëw confronter rek ak même jafe-jafe yi. Mhm. ñu ne ma yow nangam sangam yaa fi waxoon nangam déedéet dama mhm. bëgg mu leer. Mhm. le premier problème de la commune de Pikine Ouest c'est la ville de Pikine. ci naka. waaw c'est la ville de Pikine. Euh, vous savez lorsqu'il y a eu monarchique bi mu amee. dévolution astafurlah dévolution du patrimoine bi mu amee. en lu mel ni ville de Dakar avec le maire Khalifa Sall. dafa jël ay dem jël district de Gaspard Camara boole ko ci patrimoine am mm -hmm. avec le concours euh, euh, bi nga xamante ni moom mooy euh, jàppaleeg ki nga xamante ni mooy payeur mhm. ak percepteur u région de département de Dakar mhm. même chose bi mu amee Rufisque le maire de Rufisque de mhm. la ville de Rufisque dafa jël ay responsabilités am district bu toll noonu mu jël ko taf ko ci boppam ça c'est la vérité cest dire que il faut dire les choses telles qu'elles wax naa la sànq ne la 4 millions la doon fay lañ doon fay commune Pikine Ouest bi ñu ñëwee mhm. bi dévolution patrimoine bi amee on s'est retrouvé avec plus de millions et quelques mhm. nous avons fait la même proposition à la collectivité intermédiaire pour mu jël ay responsabilités jël en charge le district de Dominique mhm. parce que Dominique defu ko Dominique maa ngi ñëw rek Dominique c'est plus de 400 000 patients par an okay. Pikine Ouest c'est moins de habitants donc on s'est naturellement Mhm. yeneen trois cent vingt cinq mille yeneen trois cent trente cinq mille yi fan lañ dëkk. Mhm. fan la ñuy jóge c'est le département de Pikine. bien sûr c'est, c'est pas c'est pas c'est pas compliqué. donc ay responsabilité wu gox-goxaan yooyu. je mhm. dis même pas simplement pas tout simplement le maire de la ville de Pikine. je dis aussi que les collectivités locales yi nga xamante ne ñoo nekk ci arrondissement de Dagoudane ak maire yi ko jiite. ils ont leur responsabilité dans ce qui arrive. à la population de Pikine parce ñoo fa ëpp lu là c'est la vérité. parce que boo xoolee Pikine noor la gën a jege que Pikine Ouest. si Pikine Ouest la nekk mm-hmm. mais Pikine noor la gën a jege. Mm-hmm. li fay ñëw ci waa ginnaaw raay moo ëpp foofu li fay jóge c'est la vérité. Mm-hmm. je pense que leadership bu maire de la ville de Pikine. moo doon amener ces ces collectivités locales à prendre leurs responsabilités. à défaut moom mu def ko. je pense que le premier problème. mooy foofu la foofu la nekk. Mhm. quand tu te retrouves de quatre à quinze millions. Mhm. pour après nga mun a am ay réalisations pour après nga mun a def leneen il te faudra être un génie aller se débrouiller dans la coopération internationale. Mhm. profiter de certaines opportunités internationales. pour pouvoir ensuite régler le problème des populations de Pikine Ouest. ça c'est la vérité. nga ne da am ay ambition pour jiite goxu Pikine Ouest. mais Issa rang bi sans seerewul foofu Pape Gorgui Ndong mu ne day waat mandat. Cheikh Thiam mi ngi taxaw ci beneen côté tudduma xaw ma ñeneen ñi mais yow est-ce que du xaw a métti ak leadership bi bu ñu jàppee ni ndaw ñi dañu leen xaw a dooleel tuuti est-ce que du compliqué un tout petit peu. Euh, waaw on n'en disconvient pas. aduna nag amul lu yomb. Mhm. aduna nag amul loo xamante ni euh, lu euh, lu yomb la. Mhm. ci géewu politique lañ nekk aussi jafe-jafe euh, mënu ci ñàkk. Mhm. mais dama gëm ni nous avons eu l'expérience. am nañ ci ay xalaat aussi am nañ ci ay mbébét. Hmm. am nañ ci bëgg-bëgg. gëm nañ ni aussi terrain politique dara mayewu fi. bien euh, certes. ku ci nekk ci ñun. am na loo xamante ni mun na ko faire prévaloir auprès des populations de Pikine Ouest. pour mën a gagner je pense que ñaar nga fi cité ba ñett. mais ñeneen ñi voilà bëri nañ fi bëri nañ fi mat nañ fi au moins plus de plus de quinze. parce que je me rappelle en bi ñuy dem élection. on était il quatorze listes. sans pour autant compter list yi nga xamante ni euh, refusé nañ ko. maintenant li nga wax noonu dafa am lu ci am solo. ndaw ñi depuis l'aube des temps. Euh, dañ leen di xaarloo rek. wala ñu leen di jàngiloo. mun nga jàng ba nekk docteur sax boo nekkee xale dañ naan la xaaral rek xale nga. loolu réalité wu Sénégal la. je pense que on peut pas être 65 pour cent de la population plus de 48 ou 52 pour cent des listes électorales. Mm Euh, ba pare ñu ñuy xaarloo encore. Mmh. nous avons une vision. nous mmh. avons une perception de la gestion. Mmh. gëm nañu ni. Euh, war nañ ci mun a dem euh, ak ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gëm. yaa ngi lay yaa ngi partagé idée bi ak askan wi foofu. comme tey bisu scoop la perception bi la. comme tey bisu scoop la on va on va on va te permettre d'avoir. certains scoops. loolu de dinañu neex trop. on a mis en place. la génération jëf. avec comme objectif euh, d'avoir une liste dans chaque collectivité locale du département de Pékin. Okay. Nous y travaillons. Mm -hmm. Nous avons identifié à 6 jeunes yoo xamante ni ñoo ngi si. Mhm. Nous allons aller vers euh, le décembre incha allah. Mm vers la présentation. Mm -hmm. de nos programmes combinés parce que li ñu gëm mooy c'est un développement euh, collectif. Mhm. Euh, aucune collectivité locale ne peut sortir du lot. dans Pikine. Mm -hmm. pour offrir quelque chose de nouveau à nos à nos populations. il faut mhm. que mu am. Euh, est-ce que dem ak yéen kese du risque wala ay. si parti politique lañ bokk. Mhm. si parti politique lañ bokk. Mhm. Euh, nous savons comment les partis politiques fonctionnent. nous connaissons aussi euh, les réalités du terrain. Euh, waxtu ba dina jot waxtaan dina am. su boobaa ñu jàkkaarloog kilifa réew mi parce que qu'on le dise ou pas dans certaines collectivités locales ci yenn gox-goxaant Euh, mm-hmm. APR yi jiite bu euh, ñu bu ñu leen reconduiraatee y a de fortes chances que le président de la République perde ces élections là loolu moom ci foo ko teg loolu foo ko wékk euh, ci réew mi lañu dëkk <laughs> ci réew mi lañ juddoo yaroo fi màggee fi mm-hmm. on a la perception des choses mm-hmm. bu njëkk dama doon ànd ak Bamba ci benn liste nga bañ Bamba votel ma parce que mun naa am bu ñu demee ci waxtaan bi ma nekk maire wala nga nekk maire avec le nouveau format. Hmm. c' est Bamba qui y va c' est Bamba qui se a certains responsables qu'on le dise ou pas. su ma la déggee daal euh, Pikine Ouest sa mbébét la. Euh, département de Pikine suñu mbébét la. certes on est on est jeune. Euh, xam nañ aussi suñu. ku nekk booy bay da ngay bay sa weew tànk suñuy possibilité mhm. ku nekk xam nañ suñu possibilité fu mu mën a yem. Mhm. Euh, au delà du département de Pikine au delà de la commune de Pikine Ouest c' est Pikine nous intéresse de manière générale notre objectif fondamental. c' de mhm. faire en sorte. que la coalition Benno Bokk Yaakaar que le président de la République en somme ne puisse pas perdre ces collectivités locales la mbébét euh, bi ñu jël que quelles que soient les circonstances nous devons être maires mm-hmm. déedéet notre objectif c'est que ces communes là euh, rester dans l'escarcelle de Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. loolu nag dina yomb loolu nag jafe-jafe jafe-jafe lay indi parce que tu seras combattu de l'intérieur comme de l'extérieur euh, liñ ci mbébét biñ ci jël nag mm-hmm. du waxuma la sax kilifa gi nga xam ni moo jiite parti bi parce que man c'est comme ça que je fonctionne bu may bu ma lay jàppale dama lay jàppale bon gré mal gré. nga nga bëgg ko nga bañ ko si je vois que ce que je pense. est la meilleure des options je le ferai. quelles qu'en soient les circonstances. te fàttali ni njiitu réew moom mooy joxe liste yi. donc euh, foofu. waaw de forte chance ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci kanam ñoom ñoo nar a. bénéficié ci leneen mais bu fàtte ni njiitu réew mi aussi euh, njiitu réew la. ba noppi c'est un acteur politique. qui est au fait de ce qui se passe partout dans le monde. partout dans le Sénégal de manière générale okay. je pense que perception yi muy am mhm. ñun sax eh, dañu dëkk ci gox rek di ko xayma mais moom aussi am na perception yi lan mooy sa projet bu njëkk ci biir euh, département bu Pikine euh, njeexital bi euh, bëgg-bëgg bi ak mbébét bi mooy condition de vie yi nga xamante ñu ngi koy am ñu mun ko améliorer. Mhm. par rapport à l' inondation euh, par rapport à l' inondation. Mhm. Euh, damay faral di dégg très souvent yenn collectivité locale quand on les interroge. Mhm. dañ naan la du du compétence transférée. damay faral di wax ni euh, jàppale. askan wi soulager leen mooy première compétence transférée. loolu. mais des fois ñoom dañuy <laughs> ñëw di indi ay moto pompe mais loolu sax loolu du sax compétence transférée. Mhm. dama juum compétence innée wu collectivité locale. Ah yaakaar naa collectivité locale buy juddu day judduwaale. Mhm. ngir jàppale ngir suqali askan wi. loolu mooy première li nga xamante ni moom moo ñoŋal collectivité locale. Mhm. et je pense que chaque maire commune ba nga nekk. xam nga ban commune ban quartier ban zone mooy inondé chaque année. je comprends toujours pas. les empêche. comme ni ñuy def tabaski di génnee vingt wala trente hmm. millions bu élec bu collect bu bu bu mbënd mi di waaj a jub si ñu góorgóorlu génnee cinq millions. Hmm. préparer ko à l'avance positionner yenn moto pompe yi parce que ndox bi liy indi problème bi. du hmm. du du benn taw de. à l'exception de cette année. Mhm, benn taw euh, du mhm. benn taw de. Mhm. benn taw dafay des beneen fekk ko fa beneen fekk ko fa mu soog a dugg ci kër jàmbur yi. yaakaar naa ni bu ñu ko positionné woon comme ni mu waree. bu benn ñëwee ñu évacuer ko beneen ñëw ñu évacuer ko dinañ ci góorgóorlu des fois on te parle yaakaar naa ni ñoom seen i oto du ñàkk carburant donc ils peuvent se débrouiller pour trois mois pour que moto pompe yi bañ a ñàkk carburant. loolu yëpp question situation bi détérioré woo rek. daf mhm. leen di dépasser ñoom. Mhm. ils se cachent derrière les compétences transférées après dañ naan président de la république moo liggéeyul. Mhm. alors que ku dëkk Pikine juddoo fa yaroo fa màggee fa. nga xayma diggante ak di nga gis ni le plan décennal de lutte contre les inondations. a nettement amélioré li nga xamante moom mooy dundu askan wi. au niveau national dañuy gis ni seen parti. këréel yi dafay bëri lool guerre de positionnement yi Abdou Karim Sall ak euh, maire ba da ngay xool fële nga xam ni moom moo di ca Pikine Abdoulaye timboo Pape Gorgui Ndong ñeneen ñi lan moo waral guerre boobu noonu ci entre ñoom. politique moom yaakaar naa ni moom ak euh, xiiroo ak xëccoo ak positionnement ñoo ànd. Mhm. parce que njeexital bi aussi loolu la euh, ci sama gis-gis bu gàtt ci sama xalaat bu gàtt. Euh, j'ai toujours di que mhm. les gens gagneraient mieux à mhm. être ensemble mhm. parce que c'est ce qui fait la mooy dooleeg li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, moom mooy moom mooy dooleel département de Pikine de manière générale mais pour boo xaymawee li nekk boori mbaaw wala feneen. <laughs> Mm, bu ci mujj rek mooy Pape Gorgui Ndong ak euh, Cheikh Thiam di xëccoo ku war a teg moto pompe ci teene cosaan nga nekk ci gox ba ñoom ñi ay leader foofu vraiment loolu lan moo bal mooy sa commentaire ci loolu. Ah, dama dama dama j'ai suivi parce que jour boobu maa ngi woon Kër Massar. Mm-hmm. Euh, foofu nga xam ne réellement mbënd am na fa foofu moom amoon na mbënd ba nit ñi di jël ay gaal pour essayer avec l'aide euh, du ministre de l'environnement mhm. apporter leen carburant pour soulager les populations mhm. ñun Pikine Ouest dañ dëkk euh, amuñu lu dul Pikine Ouest mhm. mais sincèrement Pikine Ouest amul inondation bu jar ñaari leader di xëccoo ah bon terrain cosaan wala tur la non terrain terrain cosaan ñun xam nañ <laughs> xam nga terrain cosaan xam naa ko keneen xam na ko taa bu ci war moom bu bu taa bi après bu ñu pompé moins de vingt quatre heures mu dem mhm. euh, yaakaar naa aussi beneen aspect bi ci nekk mooy euh, li may faral di wax très souvent mhm. briller ne peut pas laisser les autres briller mhm. ne pas t'empêcher de briller le maire Pape gi Ndao n'avait rien à perdre à laisser Cheikh installer sa motopompe tirer ndox bi moom it mu mbosam a ngi tege bu kee tegee bosam muy ñaar. Mhm. population yi gën a euh, soulagement wu population bi day gën a gaaw rek. Mhm. yaakaaruma ni <laughs> donc dafay am leneen lu muy déteindre. Mhm. day déteindre si ni c'est pas soulager les populations qui nous intéressent. maintenant Cheikh aussi qu'on le dise ou pas euh, je sais pas qu'est-ce qu'il gagne à pour mettre une motopompe quelque part. peut-être tour lay wut wala leneen. Mhm. mais je pense que c'était c'était c'était c'était mal c'était c'était mal négocié c'était mal après apprécié. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla am na ñeneen ñu ko soxla woon. Mhm. président de la république bi ñuy jàppale ñoom ñaar ñëpp. Kër Massar la ko gënoon a soxla. mënoon nañ fa dem ñu góorgóorlu fa. Euh, xëy na permettre aussi. wala euh, cosaan bi moo am doole rek. waaw loolu aussi xëy na xëy na moo si nekk <laughs> mais nawetaan amul ren je pense que c'est une mauvaise appréciation parce que des fois damay fa moom laay faral di wax très souvent euh, gis nga sénégalais mhm. dañu yeewu léegi waaw dañ leen nax naxati leen sëlëm leen sëlëmati leen yu bari léegi waaw woni na quoi waaw yu bari léegi dañ na mhm. quand tu proposes quelque chose mhm. proposer loo xamante ni dina amal njariñ askan wi su ko defee ñëpp ànd ci moi je dis que li gën a am solo mooy que yow mi jiite collectivité locale bi. Mm-hmm. su nit ñëwee bëgg def dara. yaa ko war a tàllal loxo mu ñëw def ko donte yéen ñaar àndoo leen. Mm-hmm. rawatina nag bu ngeen ne yéen ñaar ñëpp président la république ngeen di àndal. et je pense que jàppale président de la république aussi. Mm-hmm. Euh, warul mun a tax ngay créer tension wala créer situation boo xamante ni. Euh, dinañ ni ñoŋul président yi ñoom ñoo nekk fee di xeex. seen parti di APR fan yi ñu génn am na kàddu yi nga xam ne jib na ci euh, Aliou Dembourou Sow député la. alors euh, yëkkati na ay kàddu kii prôné yenn ci troisième mandat ba yenn yi ne ku ko jàppalewul sax ñu génne ay machette kàddu yooyu ndax gisoo ni nekkul ay kàddu yu garaaw. waaw euh, bi ma ko dégluwee bi ma ko bi ma ko saytuwee. Mhm. Euh, gis naa ni waxtaan entre ñaari nit la bu ñu génnee. Mhm. beneen bi ci topp. mbirum waaso yi tam na ci. kàddu bu jug waaw mm-hmm. benn bi ci topp mooy bi gën a am solo mm-hmm. ci lu may faral di wax mooy euh, métier bi ngeen di def dafa nekk métier boo xamante ni pour man mm-hmm. xaw ma nag ñeneen ñi nuñ ko jàppee pour man stabilité réew mi yéen a ko yor au delà de ñun responsable nous les acteurs politiques responsabilité bi ñu ci am euh, Masamba wala Mademba bu waxee naka sudul noonu moi je juge nécessaire de pas même pas commenter ces histoires là que li mu wax teguwul fenn Sénégal du Sénégalu pël yi wala tukulóor yi wala leneen moi ma mère elle est pël mon père est wolof. Mhm. da nga may xaaj en deux mun mënta nekk. Mhm. c' est des propos irresponsables pour man ci ni ma ko jàngatee. Mhm. ci ni ma ko dégluwee. moom nag lim ci indi comme leeral euh, nekk na loo xamante ni euh, dégguma pulaar mais niñ ko interprété ñoom. mooy que ni li mu doon waxee jaas yi moom mooy carte yi. ci ci ci perception bu mu am. mais ak lu ci mënti doon. ak lu mu ci mën ci doon mhm. c'est des propos su fekkee ni ni mu ko waxee ni ñu ko waxee ni moom noonu la ko waxee mhm. qui sont condamnables mhm. warul jóge sax ci ki gën a tuuti ci réew mi waxuma laa ku yor ndombal tànk ci réew mi ça c'est une perception de la situation maintenant les questions de troisième deuxième ou quatrième mandat chacun est libre d'avoir une interprétation. lan moo ci sa interprétation ku ci nekk ñetteelu mandat bi. Euh, ku ci nekk ku ci nekk am nga droit am perception boo ci am. ku ci nekk am nga droit am perception boo ci am par rapport à la constitution une nouvelle constitution ancienne constitution mhm. loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ni jàngat bu ci doomu aadama war a mun a def moom la ciy def mhm. nous on est dans un parti mhm. des instructions nous a ñaari at la ñuy soog a tàmbali covid bi ñëw sax jël benn at ci li nga xamante ni moom la ñu war a def nous sommes dans l'ère du travail ci ère bi ñu nekk mooy aire wone li nga xamante ne moom la président de la république def nekkuñu ci waxu ñaar wala ñetteelu mandat bu jotee ku ci nekk ci ñun am na ay responsabilité par rapport a l'histoire par rapport ak sa conviction yow lan la ma conviction personnelle c'est ce que je suis en train de vous dire doomu aadama bu ne am na droit am une certaine lecture par rapport ak li nga xamante mooy constitution bi par rapport a son interprétation le moment venu chacun de nous s'exprimera par rapport à cette situation là est-ce que jotul Aliou Dembourou Sow génn jéggalu askan wi de waaw euh, jéggalu pour nga jéggalu pour man. Hmm. pour nga jéggalu il faut nga reconnaître ni yaa ko def. mais ba fi ñuy waxeek yow nii. Hmm. Aliou moom ci li mu wax mooy dañu interpréter ay waxam. Ah, mais vidéo yi di daw hmm. ma waxee li ma liir ci interview mooy que moom juum na ci. maintenant perception yi ci am mooy ñun en tant que membre de l'Alliance pour la wax yi muy wax. ak interview bi mu mujjee def. par rapport ak loolu. dégg nañ ci. bu Macky Sall paree jox diw. nekkuñu ci parti boo xamante ni ñoom dañuy toog di décider kan ak kan lañ koy jox bu Macky Sall paree ku ci nekk sénégalais nekk biir APR am nga droit tàllal sa loxo. Mhm. loolu aussi mbir la boo xam ne ñu koy leeral. muy Abdoulaye Daouda Diallo mhm. muy muy aamadu Ba muy keneen ak keneen. le département de Pikine dañu bokk ci ñi sanc Alliance pour la République. bu Macky Sall war nañ mun a taxaw am ku jógee département de Pikine hmm. am mbébétu jiite réew ñoom duñ ko fësal ko fësalul ñun ñi fa dëkk dinañ ànd ñoom fësalal leen ko parce que hmm. aussi boo nekkee ci parti hmm. di ci dox am na foo xamante ni fa toll président de la république toll fa commencé gul sax nga bëgg ko remplacer ñoom boo leen déggee ci seen xayma ñoom jël nañu Abdoulaye Daouda Diallo mu remplacer Macky ba noppi ah, loolu nag euh, mbir la boo xamante émission bi une heure de temps la gàtt na. mais jeex na euh, tey lan mooy sa kàdd gu mujj. maa ngi lay di la sant bu baax. jërëjëf di waat coono aussi population sénégalaise. par mhm. rapport ak Covid bi. ak mhm. impact yi mu am. Mhm. ci économie bi ci nit ñi. Euh, di leen. te tendance baissière bi ñu nekk. waaw mhm. loolu moom tawféex la. Mhm. par rapport ak ñeneen yi ñi nga xam ne ñi ngi am tendance haussière. Mhm. Euh, tendance buy buy yéeg ñoom ña ngay def couvre feu ba ñoom sax ña nga naan. est-ce que même virus bi moo nekk fi waaye <laughs> yàlla ñu yàlla musal ci seen ci seen làmmiñ. am solo comme niñ koy faral di waxee. mais fondamentalement remercier aussi la population de Pikine Ouest. Euh, vous savez il y a une certaine relation. entre la jeunesse de Pikine Ouest. et mm -hmm. et, et Serigne Issa Diop. Mhm. c'est une particularité bu ci nekk. Mhm. ñu ciy sant yàlla bu baax. ñu ci ñu ciy sant yàlla bu baax. Mhm. et incha allah mille vingt dina dina am lu bari lu mu leeral. bu soobee yàlla. loolu mu am nekkoon lu soo am solo lu baax sëriñ Issa Diop di ko sant di ko gërëm di gërëm itam ay dara moom mi nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité incha allah.